di dale bi nga xam dafa nekk si lépp tey waa kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi julli Seydina Muhammad Rasulullah salu euh, sangub sang yi di ñaan tey siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutane Mbacke xalifa Serigne Touba mi yàgg fi daan rek wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëm Fall mboolem kilifa dine ak mboolem kilifa aada yi mbokk talibé amal nañ mbégte saa su nag di jàkkaarloo ak di leen andi li nga xam moo xew-xew murid yi borom dogal nag ñu nga waajal seen ñetti bés yi nga wax les grandes journées culturelles de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul suñu borom dogal nag dem mu nekkoon première journée mu nekkoon journée virtuelle fële si Ngifa Palace sama na laango si maam Thierno Diop nekkoon fa tey suñu borom ma nar fi nekkal ak ki nga xam mooy si maam Thierno ak euh, wàllu caméra bi sëñ Moon Ñang ak euh, wàllu technique bi sëñ Ndiaga Seck di deuxième journée bi nga xam daanaka stade Demba Diop lañ koy amalee di journée bi ñu woowee festival son et lumière festival son et lumière sonné tey lépp luy xeetu koor bi am si yoonu murit wàllum sikar wàllum kuréel wàllum rees ak xëy demee incha allah dina ko amal fii dina fi amal tamit lu mel ni ay li nga xam moo day conférence ndax xam nga sëñ Mountakha Mbacké incha allah dina fi teew si kanamee léegi ñu bàyyi la incha allah ngeen daal di teewlu ñun ITV yi ndax xam nga ne bés euh, mbokk taalibe bi nañu fu ne te di leen fàttali dem dina fi am kuréel 313 boo xamante maanaam ñun ñëpp ku nekk lu weex lay sol euh, ngàlloo kaala bu ñuul léegi ñu bàyyi ngeen teewlu euh, mbooloo bi seen ak seen toobee gi ñu am si bés bi ak tamit incha allah buñ ci naanoon ñu bàyyi ngeen teewlu intégral bés bi. Goodbye. la Amen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci seen télévision Mafatihul Bichri ñi nga am mbégte di leen nuyu fii ci biir stade bu Demba Diop nekk ci buntu stade marisu Ndiaye bi xam ngeen ni kaamil bu ñu doon wax ni dañ koy bind ci genn wàllu bis Euh, fii ci biir lañ koy bindee waaye ñoom dañu wax ni euh, may kenn di dugg di leen def interview ngir waxtaan ak ñoom waaye lu mën a am mooy mbir la moo xam ni jamonoy sëñ Tuubaa la amoon jamono joo xam ni sëñ bi moo daan bind lu kaamil ñu bind ko ci benn bis loolu nag mel na ni kon moom la kuréelu Hizbut Tarqiyyah feddaliwaat tey jii def ko mel na ni kaamil bi sax moom ku mel ni caméraman yi sax dañ ciy bind li muy wane mooy man dugg naa ba ci biir da bind ci kaamil bi te loolu boo leen seetaanee image yi incha allah da ngeen ko gis mel na ni euh, loolu nag li muy wane mooy sëñ Tuubaa moom ba ci sëñ Mor mi yor caméra bi boo ko joxoon mu daal di bind ci kaamil yooyu ndax sëñ Tuubaa moom mooy borom alxuraan yàlla moo ko ko may waaye kon bala ñoo guddal ci wax jooju dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan li nga xam ne xew-xew la ci biir fii ci biir nga xam ne fi la ñuy bind kaamil yi. ci ay tout tànk yoo xam ne ñoom ñoo koy bind ba ci kanam xam naa da nga am loo xam ni da ngeen ko gisaat ci biir stade bi ginnaaw bu kaamil yooyu génn kon mbokk yi ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

الهضاب